Caaroy euh, ñu né ndox bi euh, ndoxum géej bi daa am benn produit toxique buñ ci def ba am xale yi am ay feebar ay bouton ak yoy noonu tay yeen ngeen doon ay activiste nekk ci boobu ak léegi ci xeex bi suñu démé ba ci Sénégal ñu dégg lool en tant que activiste nan ngeen ko jangaté wa ni ñu koy jangaté jàngatee euh, euh sàggan nañu parce que buñ la né signé nañu licence de pêche signé nañu ay accord joxé ay licence de pêche mm-hmm. donc amatuñu contrôle ci suñu géej. Mm-hmm. Euh, ñu ne 45 bateaux la ñu autorisé pour ñuy dugg ci géej gi di napp mën na nekk loo xamante ni sax ñooñu ñu autorisé mooy espagnol yeeg français yeeg yooyu ñu autorisé ñuy napp ci géej gi sotti fa seen produits toxiques yu bon pour empêcher à nos pêcheurs artisanaux maanaam ñi nga xamante ni local la ñuy napp pour ñu bañ fa dugg te man loolu la gën a gëm parce que instant bi nii. Euh, Europe dafa nekk ci lépp loo xamante ni luy rey africain yi la mais je dis bien ak complicité wu suñu président de la république muy Macky Sall je dis bien ak complicité wu suñu président de la république muy Macky Sall ni moko djangate, jàngatee te njortu gi ci am moy loolu Ñom tubab yu bon yoy ñoo ci sotti seeni produit produit bo xamanteni day tax xalé yi dootuñ dugg ci géej gi c'est bizarre geej go xamanteni biñ ba légui difa dugg commencé euh, am ay yu c'est le lendemain bi nga renouvelé wat accord de pêche bi ci la am kon xel war na ca tay di wax suñu doom ñu def ndank geej gi étudier problème